الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان وفرض على المسلمين صيامه وجعله أحد أركان الإسلام وشعب الإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الصوم طهارة للقلوب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله تفرغ لطاعة علام الغيوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أيها المستمعون المشاهدون الكرام لسفينة تي في أخوكم وصديقكم إمام بابا كنبوج يسلم عليكم بتحية مباركة طيبة وهي assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen mbokki téléspectateur yu Safina TV seen mbokk seen xarit imam Babacar Mbodj moo ñëw ak yéen ci seen émission makaarimul axlaaq di ñëw rekk di waxtaan ak yéen ci xew-xew bu rëy bii nga xam ne moom la ñu muy wéru koor gannaaw bi ñu borom bi wa ta'ala moom mi nga xam ne moo wàccee di téeréem bu tedd bi ci weer wu tedd wii di shahru ramadan ba pare faratal ci jullit yi ñu woor ko ba pare mu def koor nag muy benn ci ponki lislaam yi waaye muy benn itam ci màndargay gëm yàlla ñi ngi seede ne bobu tabarak wa taala mom rek mo yeyo jaamu duñ ko ak dara mom mi nga xamné ne jël koor muy nek lo xamné ne fay laabal xolub julit bi nga xamné ne woor na di seede ne suñu sang bi muhammad sallallahu alaihi wasallam jamam jaamam la ndawam la waaye moy ki nga xamné ne fa jëlone taxaw temm ci jaamu borom bi tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moo daj kumpa yal na yàlla dolli xéewal ci moom te musal ko ak i ñooñam ak i saxaabaam yi nga xam ne dañ koo toppoon ci lépp loo xam ne rek dañ ciy amal ngërëmal yàlla ñu jëloon yàlla méngoog moom yàlla itam jëlaat leen moom it méngoog ñoom maanaam nekk ñi nga xam ne ay alliés yàlla la yal na yàlla gërëm leen ñoom ñépp ak képp koo xam ne yaa ngi tegu rek ci seen yoon wi nga xam ne ci lañ soobu woon bu ko defee yéen mbokki jullit yi nañu xam ne day ñu ngi dëgmal mooy ñu ngi seenu weer woo xam ne borom bi ko taala ci la wàcce alxuraanam ju leer ji mu faratal ci weer wi itam ci képp koo xam ne mu kallaf nga dib ab jullit nga woor ko bu ko defee kon ñoo ngi ñaax suñ bopp di leen ñaax ci dëgg nañ ko woor gën jaa rafetu anam te ñu taxaw ci mboolem àq yi nga xam ne moom la koor am ñu sàmmoonteeg moom te itam ñu wattu te sàmm suñuy cër ci lépp loo xam ne day yàqu koor waaye ci lépp loo xam ne mooy yàlla la wala mu mën a jox nit bàkkaar te itam weer wi ñu jéem ko dundal dundale waxtoom yépp ci jaamu yàlla ak rafetal te bu ko defee ñu jéema sam suñuy lamiñ ci jëw ak rambaaj ak fen ak sos ndax jëlé nañ ci abu hurayra radiyallahu anhu mu wax né yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imra'un sa'im yonent bi sallallahu alaihi wa daf dan wax ne kenn ci yeen bu nekkatee ci bisub koor deug bu mu wax mukk wax ju ñaaw waye itam bu mu yekkati batam ci xulo ak ci dagga sante neena bu kenn ñewé nak nee na ŋàññ ko xas ko wala mu jéem a xeex ak moom na ne ko man dey dama woor pour won ko ne jàmm rek la wut te jàmm rek la bëgg ndax dafa bëgg tiyaba ci wër wi motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ne man lam yada khawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun في أن يدع طعامه وشرابه يننت بي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني دو باي وخي تياخان اك ديكو جيف نينا نغا خامني يالا امول سخلا تي nga باي ليك اك باي نان رواه البخاري وقال جابر رضي الله عنه إذا سمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء جابر مانغي واخني يونت بي صلى الله عليه وسلم مانغي واخني بو ووري دغ نغا فخه با ساي نوب وور say bët woor sa lamiñ woor ci fenn ak lépp loo xam ne lu xaraam la te nee na nga fexe ba bàyyi lor sa dëkkandoo te itam na nga fexe ba làmboo sàmm ak dal ci bis boo wooree nee na fexeel itam ba bis boo wooree ak bis bi nga woorul ñu mën ko xàmmee ci maanaam ni ngay sàmmoo ak ni ngay yiwe ak ni ngay bëgge lu baax ci bis boo wooree ñu xàmmee ko bis boo wóorul moo tax benn shaacir moo doon wax ne ida lam yakun fi samci minni tasaamumun wa fi basari gaddun في منطقي صمت فحظي اذا من صوم الجوع والظما فان قلت اني سمت يومي فما سمت بين وقت دفا وخني بو أنت نسمي نوب du teux ci bis buma woré sama beut du sama lamiñ yitam du noppi ci bu ma wooree kon kët sama koor googu li ciy sama chance mooy xiif donn ak mar te itam bu booba bu fekkente ne yooyu yépp benn wóoru ci bu ma waxee ne dama woor itam naa xam ne booba damay nax sam bopp waaye wóoruma ndax soppe bi moo wax ne boo wooree na sa cër yépp woor ñu xam ne daal weeru koor weer la woo xam ne ponk bu màgg la ci ponki lislaam yi te itam nag dog ci benn bés boo xam ne àndul ak ngànt ngànt taxul nañu xam ne bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi te itam ñu xam ne itam faratal woor farata la te ma ngi commencé lan mooy koor mooy da ngay jàpp bëccëg yépp li ko tàmbalee ci fajar ba jant so ci mboolem li nga xam ne dafay dog koor lu mel ni lekk naan sëy waaye noonu nga xam ne yooyu nga war cee jàpp dafay war itam nga sàmm sa mboolem cër yi nga xam ne am nga leen ci lépp loo xam ne dafa wuuteeg loo xam ne dafa wuuteeg koor walla lépp loo xam ne dafay màbb tiyaabay koor rekk nga fexe ba sàmm ci sa mboolem cër yi te itam nag nga yéene te selal yéene bi te itam nag foo toll ci bis boo wooree ngay fuglu borom bi tabaaraka wa taala moom mi nga xam ne xam na kumpa jële nañ ci abu hurayra radiyallahu anhu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na man saama ramadaana imaanan waxti saaban gufira lahu ma taqaddam min dambihi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na képp ku woor weeru koor te gëm yàlla tax nga xam ne lii yàlla moo ko faratal ci yow muy lu war te itam ak wut ci tiyaaba nee na na la wóor ne yàlla jéggal na la mboolem bàkkaar boo xam ne amoon nga ko avant ngay um koor googu Buxaari wal muslim ñoo ko solo bu ko defee kon nag dëgg nañu góor góorlu ci woor weer wii nga xam ne moom lañuy bëgg a dugg te ñu fexe ba bu ñu xañ suñ bopp yërmande yàlla ju yaatu ji nga xam ne moom lay sotti ci weer wi dëgg-dëgg dal ku ñàkk solo ku saay-saay mooy képp koo xam ne fexe nga ba xagn sa bop yermade ji nga xamné mom la yàlla di wessare ci wèr wi te itam nga fexe ba sori ngeureumal borom bi tabaaraka taala ndax borom bi mo wax ne شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان mu ne weeru koor wi nga xam ne ci lañu wàccee alxuraan jii nga xam ne aw njub ak njub la ñeel nit ñi ak loo xam ne da leen di faram fàcce leeral leen lépp loo xam ne moom lañ war a def ci àdduna ak lépp loo xam ne waruñu ko fee def muy téere boo xam ne njub ak tàqale dëgg ak lu dul dëgg ak i caaxaan moo ko moom rekk moo ko tax a jóg moo tax yonent bi sallallahu alayhi daf daan wax ne bu weer wi teroo rek ne ataakum shahru ramadan na ngeen xam ne weeru koor dikkal na leen te na ngeen xam ne weer wu yàlla barkeel la na ngeen xam ne itam yàlla farataal na ci yéen ngeen woor ko te ngeen xam ne bis bu weer wi tàmbalee rek yàlla day ubbi bunti àjjana yépp tëj bunti safara yépp waaye itam seytaane ak ñi nga xam ne ñooy àndandoom yu fetteerlu yi yàlla da leen di tënk ba duutuñu mënal kenn dara daf daan wax ne itam guddee ngi ci nag guddi goo xam ne moo gën junni weer maanaam quatre vingt yoo xam ne danga cee jaamu yàlla ba yàlla nangu ko guddi googu mën nga cee am lu toll noonu lu ko ëpp ndax xayrun la wax yonent bi daal nee na képp koo xam ne sàggan nga ba yiw wi nekk ci weeru koor ñu xañ la ko wallahi na nga xam ne xañ nga sa bopp loo xam ne mënatoo koo am li des ci sag dund ñun Anas daf ne yonent bi sallallahu alayhi bu daan weer wi teru yitam mu ne na ngeen xam ne kat weer wu tedd dikkal na leen guddee nga ci goo xam ne moo gën junniy weer képp koo xam ne yiw wi nekk ci guddi googu ak ci weer wii xañ nga ko sa bopp nanga xam ne yow day wóor na la ne nanga nga jàpp ne yërmande yàlla ak njéggalam xañ nga ko sa bop te yonent bi sallallahu alaihi wa dafa don wax ne manam aljana len rek mo fa meuna duggal nit yalla yir la maraka mbalanum yermande ak njegal abu hurayra radiyallahu anhu mangi ñuy nettali ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa am ben bis rek al minbara fa qala amin amin amin قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلن يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين رواه ابن قزيمة وابن حبان في صحيحه أبو هريرة دفن نتلي ne benn bis day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yéeg minbar minbar bi rekk toogagul sax ne amin amin amin yal na yàlla nangu yal na yàlla nangu ñu ne ko waaw yow mi yàlla yónni yow yaa ngi yéeg ci minbar bi ñaanagoo sax commencé di wax amin yonent bi ne leen jibril kat dafa dikk léegi bi ma yéeg ci minbar bi ne yow yonent bi képp koo xam ne weeru koor ñëw na ba jeex te yàlla jéggalu la say bàkkaar nga dem safara ëllëg kooku dey yàlla soreel na ko yërmandeem yàlla soreel na ko njéggalam waaye walla boog yal na ko yàlla soril njéggalam yal na ko yàlla soril yërmandeem ba pare nag waxaat yonent bi ne ko waxal amiin yonent bi ne amiin moo tax mu wax ñett yoo xam ne mu ne képp koo xam ne ñett yii daal képp ku ñëw ci yow na la wóor ne perte nga nee na raxima an fu rajulin zukirtu indahu walam yusalli alayya képp ku dégg ñu wax ne tudd sama tur man mu tedd mi te néewoo sallallahu alayhi wa sallam kooku day perte na torox na te sori na nga yërmande yàlla ak njëggalam nee na képp koo xam ne itam sa ñaari wayjur yàlla dimbali la ngay dund ba fekke seenu sag man ñu fekke ko te defaloo leen ci lu tax yàlla gërëm la dugal la àjjana yow perte nga sori nga yërmande yalla sori nga njëggalam neena ak ko xamne itam wéru koor ñewna na ba jeex te yalla jéggalu la say bàkkaar koka perte na bu ko yeen mbokki téléspectateurs yi kon nañu jéem a commencé tàggat suñu ruh ak suñu xol ak suñu yaram te ñu fexe ba li nga xam ne yëg-yëg ñu jéem yee ko ci suñu jëmm yi te itam lépp loo xam ne mooy tënk nit ba du mën a dund weeru koor ñu fexe ba yooyu ñu jéem ko faxas léegi ñu fexe itam ba dundal suñu dënn dundal suñu xol te itam ñu ubbi mboolem yëg-yëg yi nga xam ne am nañ ko rekk ñu fexe ba yee ko ci ñun ndax weer la yoo xam ne weer la woo xam ne ay bis yu néew la bu ñu ci duggee ne tey taafeer weeru jàmm rekk day mel ne jàppal ne weer wi jeex na moo tax yàlla nañu yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ayaaman maadudaat yéen ñi nga xam ne gëm ngeen farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ci mboolem yonent yi leen ak xeet yi leen jiitu woon ngir bu ngeen ko wooree ci ni ko yàlla bëgge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko bu ngeen ci jógee résultat bi mu leen di joxal mooy taqwallah ragal yàlla te ragal yàlla nag mooy lépp ndax mooy def li la yàlla sant bàyyi lim la tere yàlla di ñu won ne yomb naa muñ ndax ay yaamam maadudaat ay bis yu ñu lim la muy ñaar fukki fan ak juróom ñeent wala gën jaa bari fanweeri fan bu ko defee yéen mbokku jullit yi yéen ummatul quraan yéen xeetu alxuraan nañu gaaw ci waajal woor weer wi ndax woor kat farata la ci mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi te itam koor dafa yëkkati ruuxu doom aadama moo tax yàlla wax ne koor daal maa ko moom maa koy fayal sam bopp moo tax koor képp ku woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maanaam lépp loo ñaan yàlla yàlla du la ko delloo mukk ku woor daal kon mooy tàggat sa bopp jëme ko ci ragal yàlla waaye jëme ko ci am ngërëmal yàlla waaye jëme ko ci itam topp ndigalal borom bi tabaaraka wa gis ngeen koor dafay ubbi xel leeral ko waaye dafay laabal bakkan waaye itam dafay noppal ay cër waaye dafay yóbbe nit wér gi yaram ndax yonent bi daf daan wax ne suumu tase na ngeen woor te wér scientifique yi sax jamono yi génnee nañ ay xam-xam yu rëy ci koor ba wax ne yonent bi li mu digle saw mu ay yaamul biit ñoom dem nañ ba trouver ne woor ñetti fan yu tegaloo dafay jouer rôle bu reuy ci yaramu doomu aadama bu ko defee yéen mbokki jullit yi dëgg nañ fexe ba bañ a dog benn bis ci weeru koor ci lu àndul ak ngant ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam nee na képp koo xam ne dog nga benn bis ci weeru koor te ngant taxul nee na boo doon woor li des ci sa giiru dund du tax nga mën koo fay te képp ku ci woo dog benn bis te fekk ne yaa ngi wér yaa ngi sax fi nga dëkk nekkoo ci kuy tukki te am nga kàttanu woor nga dog ci benn bis na la wóor ne yàlla mere na la mer moo xam ne kenn mënu koo takk te itam na nga xam ne doyadal nga sa bopp ndax perte nga pertaange goo xam ne duutoo ko mën a dab dabaadat li des sa giiru dund ndax mooy lim la wax ne boo doon woor li des ci sa dund itam ñàkk nga loo xam ne mënatoo koo job dat bu ko defee képp koo xam ne amoo ngànt boo wóorul na la wóor ne tooñ nga sa bopp tooñ nga sa boroom nañ xam ne daal woor weeru koor yàlla moo ko faratal ci jullit nañ leen gaaw màng lépp lu ci nekk ci ci aw yiw weeru koor dañ lay wax ne dañuy tënk seytaane waaye nañu fexe ba ñun itam ñu tënk suñuy bànneex tënk suñu bëgg àdduna ndax tënk nañ saan ban seytaane de waaye bànneexu bakkan a ngi fi fexe ba ne doo xañ sa biir bii lekk doo ko xañ naan ndax ne ñemewoo xiif loolu musiba la ci doom aadama ci ab jullit nañu góor góorlu woor weer wi te ba ndax bariwul te ci li ci nekk ci njéggal ak yërmande ku ko xamoon boo dee tukki sax te mu wóor la ne tukki bi doo ci loru sax wa an tasumu xayrul lakum la yàlla wax bu ngeen wooroon day te fekk man ngeen ko moo gën ci yéen ndax yàlla xam na dayob weeru koor ak lim ci préparel ab jullit moo tax bëggu ko koo xañ moo tax mu may la ko ba pare ne la boo mënoon a wóor sax nag moo gën nañu góor góorlu di jàng alxuraan ci weer wi di ci tudd yàlla guddi ak bëccëg suba ngoon guddi bëccëg yi ñu dundale ko koor ak jàng alxuraan ak tudd yàlla ak def lu baax guddi yi ñu dundale ko jàng alxuraan ak taxaw di naafila ndax yonent bi sallallahu alayhi wasalam, sallam nee na man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddam min zanbihi nee na képp koo xam ne da ngay dundal guddi koor ci ak ci jàng alxuraan nee na yàlla jéggal la mboolem sa bàkkaar yépp bu ko defee daal ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyama shafi'an ashaabihi na di jàng alxuraan ndax yëfay ñëw bu yowmal qiyaamee taxaw ñu war laa rungu yóbbu la safara koor jóge fëleñ ne yàlla kii day maa ngi seede ne da daan woor bëccëg gi di xiif di mar ngir man ngir koor yow yàlla teg maa dimbale tin ma ci moom yàlla ne ko bàyyi naa ko àndal ak moom yóbbu ko àjjana koor yitam yonent bi nee na nit dana ñëw àllaaxira ñu war ko yóbbu safara koor jóge fële ñëw ne yàlla kii day sa jëmm jee taxoon muy xiif ak di weeru koor yow yàlla tee nga maa tin ci moom yàlla ne ko jàppal ci loxoom ànd ak moom dem àjjana kon nag weer a ngi nii weeru def lu baax weeru jokk mbokk weeru dimbali jirim weeru bari yërmande weeru góorgóorlu weeru lépp loo xam ne doo ca am ngërëmal yàlla nga sori ko waaye lépp loo xam ne ngërëmal yàllaa ngi ci doo ca xeeb dara bu ko defee loolu daal mooy li ñu leen indiloon ci weer wu tedd wu barkeel wii di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu may ñu ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim may ñu kàttan gu ñu ko woore may ñu kàttan gu ko sellale may ñu kàttan guñ ko mànge bam jeex te lépp luñ ci def yal na ko yàlla nangu ñoo ngi nuyu mboolem ñi seetaan Safina TV di nuyu suñu sëriñ Cerno Xaamidu Yoroban di ñaan borom bi tabaaraka taala yal na yàlla may ko gudd fan yal na yàlla may ko wér yal na yàlla may ko xabul ak ijaaba yal na yàlla may ko mu réaliser ay projet ndax projet am yépp luy dundal islaam la luy yokk lislaam la luy jariñ jullit yi rekk la di nuyu suñu directrice soxna ñuma di nuyu suñu technicien suñu jarbaat sàmba si di nuyu mboolem xale yi liggéey ci rajo bi ak ci télévision bi di nuyu mboolem auditeur yépp di nuyu sama mbokki Hann Mariste yépp waaye di nuyu itam sama mbokki taalibe daara Serigne Mor Diop bu Parcelles Assainies ak sama mbokki Louga ak sama mbokki Rimbax yépp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa